Euh, làmb moom nekk na loo xam ne lii fo rek la yaa ngi dégg dañuy ñaan rek ñu bëri que comme li nga wax rek si fair play parce que tey làmb ji ñoom euh, benn lañ ama mi nga xam ne mooy bëri moo Modou tey sama doom la ndax ama sama papa moo indi Falaye Baldé fii ci Ndakaaru nekk manager du dëgg donc tey sotti la ak def ci rek làmb nag moo leen boole. mu doon loo xam ne li ku nekk da nga am sa carrière def sa yoon ba yàlla boole leen li des rek mooy ñu def ko si jàmm ak salaam vraiment mu bañ a am benn bruit bañ a am benn coow. waaw mais date moo amagul ci boppam. parce que gis bi fis kii wooguñ ko. ficelé nañ combat bi. mais date ama amagul date. ñun amuñu problème ñun mu doon suba mu doon gannaaw suba mu nekk déwén sax ñun amuñu problème boobu. mais bu ngeen sañoon a libéré ah mais moo gënal ñëpp loolu moo gënal promoteur bi moo gënal mbër yëpp bu sañoon vraiment jeexal combat bi dem ci leneen ndax euh, contexte bi nga xam ne moom lañ nekk moo indi tey. combat bi ñëw ba léegi mais combat bi année passée lañ ko doon bëre donc tey amatul lu ñu yàqam ñu xaar rek. waaw Pikine ak feneen mooy xam nga làmb moom service dor da si am solo fu ma nekk bu amee service d'ordre bu am solo rek loolu amul benn problème ñun moom suñu bëre moom fu mu doon baax na ñun amuñu problème boobu. mu si yoon bi di ñëw. 50 50. bon loolu moom bon peut-être ñun ñi mën nañ ko wax rek mais ñun xam nañ. moom fan la jógee parcelle. départ na moom kay non parcelle parcelle. parcelle actuellement ni jege na parcelle mu ngi si yoon. baax waaw tey mu mel ni mbokk gis ngeen ah, xale yi nga xamante ni ñoo jógee Pikine indi Ama Baldé sëll bu ndaw. gis nga tey taxawaay bi nga xamante ne indi nañ ko fii ci jàkkaarloo bi da ngay yuuxu amaaye mu mel ni sël bu ndaw bi màgg na mais dafa mel ni xale bi gën naa ñëwaat bis bi nag dafa nar a gën a taar ndax lii xaw ma làmb la ñu jëm xaw ma jàkkaarloo lañu jëm si mais lu mën a xew mooy Ama Baldé ak Modou Lo dañu war a am combat capital la ndax combat royal bu ñu ko war ngaa xam ne lii mënul te du yomb ci benn pàcc du yomb ci ñi nga ñoo ànd ak Ama Baldé mais également du yomb ci ñi nga xamante ni ñoo ànd ak Modou Lo gis nga xale yi sëll bu ndaw baa ngi noonu délégation sëll bu ndaw baa noonu waaw délégation sëll bu ndaw. eh wuy ma wuy ma lii lii champion moo koy def lii gaana Pikine kii mooy champion Pikine kii gaana la gaana la kii gaana sal taay taay sal Aliou Mané ngi doonu taay sal kaay waay lamb tekki na waay doomu mbër na waay xale bu ndaw baa ngi noonu doomu pikin bi Falaye Baldé baayam Zil Baldé magam bu jugee Pikine gépp jóg xale baa ngi noonu moom solo bu ndaw dugg si ñëpp yow nañ waa Pikine a ngi noonu da ngay yuuxu amaayee bis bi mënul ndaw bis bi mënul tuuti déedéet xale yaa ngi noonu mu mel ni Pikine dañoo jàpp ni tey la làmb ji dox ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé te ndeysaan face to face la rek jàkkaarloo bee am noonu sëñ Bass Birou kaay nii amaa ngi nii ak ñoo xiif déet waay bi ñuy doon tout tànk ba léegi ñu tax a noonu ndeysaan ña xaste xamal leen si fël bi muy si arène bi matul bi gën a bëre woon defet mu ñëw wane ko Modou Lo ñu mu dajal ay mag lañ bi ñëw na wallaahi fël bi ñëw na Papa Sow daa soog rek nañ ko sër boo gis ñeme amu si bu ñemee na nga def benn benn moom sër bu baatir leen ka ama nee lu bokkul si yow faxasal ka Modou Lo si ñun dañ koy faxas barki allah ji fàllu duñ am loolu. nga ni daal. Bamba dawul coow. mooy loolu Serigne Bamba moom la moom la coow la ñu wër dañ na. jërëjëf waay Serigne Bamba. Ama Baldé. signature contrat ngeen mel ni ku war a bëre si. balaa Mbuja nu muy mel. balaa ñëw bigin balaa Mbuja bu mu mënuloo yéexee place yi fees. muy national Serigne Bamba. Pikine biir Pikine. Ama jëlee fa roi des arènes. ñoo ko teg jeexal. Ah. ñoo ko teg jeexal. moom la Ama génne Ama nee na ma fa teg jeexal. ñoo ko teg jeexal.

Pikine fépp. Papis xarañ loo leen lay gaa yaa ngi noonu. waa Ama Baldé yaa ngi noonu. ma xool. grand baal ma tuuti. baal ma tuuti. groupe bi ngay jaar. Bassirou. Bas ndeysaan Aliou Mané ngi noonu def si vêtement waa Pikine ngi noonu am na poftan bu ñuy dóor ci suuf dóor nañ Aliou Mané jéggi na dugg ndeysaan Ama Baldé ba tey mu ngi ci oto bi mënul génn contrat Ama Baldé Modou fii ci Sen TV waaye mbokki yi foo sànni mbàtt bu daj man damaa jàpp ni sax làmb ji tey la non maa lay siyaar Mor Ndiaye géwél gi ndeysaan maa lay siyaar sama grand maa lay bëgg bu baax noo gisee événement na événement la boo xam ni nii la mën a demee xam ñaari mbër yi xam ni bu wootee nii la mën a demee ndax nekk na yoo xam ne vraiment mbër yu wax lan xam nga Ama Baldé waa Pikine dañ koo namm bu ko ku bi nii la mën a demee nit daal ay gaa yaa ngi noonu ndeysaan gaa yaa ngi noonu ña ngay wis am na lu ñuy wis ñu ànd ak Modou Lo ñu ngi daje buntu seen TV gis ngeen kon mu mel ni tey fi mu toll nii euh, gis ngeen jàkkaarloo bi fi mu toll nii nag jàkkaarloo bi dana doon loo xamante ni gaa yi seen jàkkaarloo bi ndeysaan bàyyi leen ko mu ñëw ngi dugg si Ama ngi dugg si Ama Baldé ngi noonu di ñëw ma ngay dugg si moom Ama Baldé ma ngay wàcc oto bi ma ngay wàcc ndeysaan ndeysaan ndeysaan gis ngeen gis ngeen mbokk yi mu ngi noonu Ama Baldé wàcc na bi ma nga sol mbaxane bu xonq ak benn yére bu blanc moom Ama Baldé doomu Fallaye Baldé baa ngi noonu Rakisil Baldé baa ngi noonu doomu Pikine baa ngi noonu xale bi moo bëreeg Ousseynou Ndiaye daan ko xale bii moo bëreeg Kati Junior daan ko xale bii moo bëreeg Baye Peul daan ko xale bii moo bëreeg ah, ki nga xamante ne mooy Papa Sow daan ko xale bii moo bëreeg Jos daan ko xale bii moo bëreeg ki nga xamante ni moom la ñëpp doon wax ni champion bi am na combat capital mu doxoon ci diggante moom ak Tapha Tine mu daan Tapha Tine jël bu rëy bu amul benn werante kii mooy Ama Baldé doomu Double Less baa ngi noonu. wala boog doomu Fallaye Baldé baa ngi noonu Ama dugg si na Ama dugg si na dugg Sen TV moom Ama Baldé dugg na dugg na voilà Ama ngi noonu Ama na Ama dugg na ci biir Ama na kenn mënu la am accès ci biir Ama ngi noonu dugg lii lii combat royal la. combat roi des arènes la te ñun roi bi incha allah si kattanu suñu borom dañ koy jël. ndax xamal nga Ama Baldé ki muy daje. non Ama ku muy bëral ñun lijjanti wuñ ko. billahi wallahi talaay Modou Lo dafa dafa ay mag daan leen mais xale bu ndaw lay bëral. yaa ñun ragaluñ lool de. war na Seydina Muhammad boo yaakaar te te jour lamb ji ngay xam ne li ma lay wax dëgg la du ma waxantu. du ma waxantu de mais xale bi day am ndam si kattanu yàlla. ma koy waxee sax addu addu bulde xam nga addu bulde booy po addu bulde dañ koy addul addul bulde kay po nu muy def. yéen ku ngeen di woo po day ñëw po. waaw kon noonu la demee nag. bu ñëwul bu ñëwul. addu addu bulde